waaw xam nga àdduna mooy mooy li ñuy wax rek tey moom mënul jël ay moyens yu bari di ko sonn ci man di ko def ci man di bàyyi yiteem mu amee combat famille bi ak njaboot gi ñoo ci ëpp ñoo ci ëpp problème mooy li la wax rek kon man li ma def noonu sax ndeysaan dafa baax rek di ko tudd waaye jàpp naa ne moom li ma defal ko fuuf gore rek moo tax mu wax loolu waaye moom lim ma defal man mënu ma ko fay waaye nag xam nga teraanga moom du tuuti loo ko defal nit moo ko waaye daal suma mag la suma lépp la daal te fonk naa ko lool lool lool. ci li mu wax soo soo amee combat da nga ñëw fii ñu ubbi la barabu sëñ Babacar ubbi la bu alaaj Malick maam alaaj Malick loolu koy njëkk defal ban sentiment nga am ban yéegi nga am bi ñu la koy defal te Aziz Ndiaye tax. waaw loolu mooy li mag nañ ne nit booy jàpp. da ngay jàpp ku mot a jàpp booy wéeru da ngay wéeru fu mot a wéeru te man alhamdulilah yàlla dénk na ma ñun ñooñu dama ci sant yàlla rek bu baax a baax a baax a baax te xam ne yombul. da ciy jàpp bu baax a baax macha allah am na solo ah. comme ni ñu ko waxee rek parce que tamit dafa mel ni kon Balla daal maanaam bu ñu xoolee bu Aziz Ndiaye nekkee ci ginnaawam ci la sécurité am di mat ci léppam di gën a wóor. waaw sant yàlla. sant yàlla ndax boo amee combat kuy sonn ci yow lépp looy def moo la koy def nii te doo ci gis benn faay kooku sécurité na la sa àdduna sécurité na la sa vie parce que xam nga làmb tey bu koy def peut-être sax euh, mooy suñu métier mais ku lay awale ci yoon boo xam ne doo benn problème sécurité na la sa lépp waaw loolu sant yàlla la su ñëwee tamit parce que mbër day da nekk ci àddina di dund bëree ëllëg Lamine nga war a bàyyi bëre war a ne ci leneen loolu est-ce que maanaam yaa ngi ciy xalaat yaa ngi Aziz parce que carrière bi day jeex ay projet yu mel ni ki noonu yaa ngi dégg parce que mbir yi continué wul. waaw loolu kay moom wax na lu ko sànq xam nga koy toogal di waxtaan ak moom di diisoo moom mooy li ma amul lépp loo xam ne ci àdduna day continuer yàlla dafa avalé rek. te bu ñu abalee lépp li nga xamante ne lu yenn maanaa da ko ci def ñëpp xam nañu làmb day jeex te Aziz maa moom du ñu jug ci bañ waxtaan ak moom loo xamante ne après làmb làmb dafa am après làmb dem te après làmb moo gën a voilà dañoo jeex moo gën te moo tax loolu mbër bu ne war nga ko sóoraale nag te sàmm ko waaw waaw bu jeexee daal avant moo jeex liggéeyal loolu bu jeexee incha allah nga mën nekk si jàmm waaye làmb dafa am après làmbam te après làmb moo gën a métti làmb. tey dañuy ñëw am na loo xam tamit parce que bisu Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam lañ ne Balla Gaye ci côté social nit ñi dañ ko ciy wax lu bare bare bare bare bëri Balla ku social la Balla nangam Balla nangam lan moo waral social ci Balla Gaye 2 ak loo dund ba tax nga social. waaw man banlieue jaar la xam nga nga judd ci banlieue day tax a ibbi xel day tax am xel. day tax am xel ndax banlieue boo ne banlieue rek euh, dafa jéggi doye yaa ngi comprendre nga banlieue mooy turu banlieue mu lan la lay signifier xaw na comme ni maanaam banlieue daal lu métti la am banlieue la mooy lu metti réel la mooy ñi nga xam ne yàlla mu yàlla jégal bu ñu añee duñu reer bu ñu njëkkee duñu añ donc man nag sama papa dama ko fekk muy bëre doon dimbali ay nit ñun dem nañu ba suñu kër bi nga xam ne suñu papa moom lu mu daaw ñu fa fanaan ndax ay nit donc ci loolu peut la ma yàlla dimbalee ak baaxaayam ma gis loolu xaw ci sàcc tuuti rek may def lu baax aussi ma gis ne tamit lu baax am na ñi àndal ñëpp loolu la ñuy def su may mag loolu la ñuy def xam nga donc loolu moo tax aussi tamit mu topp ci tànk yooyu di ko def. waaw loolu la. Lamine daam loo ko bëgg a laaj. waaw am na solo Babacar yaakaar naa ne même tontu bi lañ ci tontu woon loolu mooy wan ne li muy wax dëgg la ci moom waaye nag comme ni ñu ko waxee rek guddi gi guddi yonent bi la yàlla nañ koy yàgg féete dafa bari li fi am ren dafa bëri lépp ci yiw la waaw diggante màgg avant màggal ak gàmm ak safar ak yëpp yëpp dafa yiw xam naa nag xëy na gars yi bàyyi macha allah ba yooyu yëpp passé daal soob yàlla ñu jóg a tëgg làmb te xam naa ne làmb yi gars yi dañu ko tëggul soob yàlla incha allah kële toog buuse lañ koy wax xam nga ko bu baax a baax defe naa ne sa digganteeg buuse lu ci ne ndax gis nañ fan yi sinap bi maanaam ak nu mu tuddati moonaam daal fépp foo xam ne whatsapp baak buuse bawut dara stati yaak instagram baak fu ne mu fay aw fu mu aw ne Balla Gaye ngay mbër loolu ban saaru kii la wax la non buuse suma xarit la te ni ku baax la euh, li ma xam ci mooy maanaam xam nga mënoon na bañ dëkk géejawaay te di supporter Balla Gaye di sanam lépp ndax gis nañ fi cas bu mel noonu yu bëree bëri mais ñu bokk dëkk géejawaay maanaam loolu waxin la rek waxin la ak yëg-yëg bu moom ci man la bu ko kenn jàppee ne kii day waxee lu ko neex euh, walay demee noonu maam nit la boo xamante ne maam xol lay waxee te ki mu bëggee da koy jaral lu ne donc vraiment maa ngi koy ñaanal euh, yàlla yàlla na ko yàlla sàmm te jàppale ko daal sama xarit la daal waaw waaw sama xarit la. sa xarit. waaw sama xarit la. dégg naa des fois léeg-léeg sax yéen ñaar ngeen xaw a kii de tàng ba mu ŋàjjaaral. xam nga àdduna moom boo gisee nit boo xamante ne sa xarit la te fuñ la fuñ tuddee tudd ko bu def yenn yi tamit am nga droit woo ko ma gisee mu def fay dama naan ko lii nga def nii tegu ko ci yoon parce que am na loo xamante ne euh, bu yàlla dogee te ñëpp xamee la diw. wala yàlla dogal tey ngay def benn affaire tey fàtte nañ sax ñi nga doon àndal mais tey fexe nga ba am sa yoonu bopp ñëpp ràññee la sa yoon da nga koy rafetal di wax lu baax di def lu rafet bu ko defee ñëpp noonu la parce que ëllëg tamit dafa moto sóoraale bul topp sa fugg bul sa ba yëg-yëg rek di ko defee noonu waaw loolu la. Balla ak famille moom. Hmm? Balla ak famille maanaam sa famille famille Sakho bi. say doomu baay say rakk say frère nàngam ak say mag ak yooyu. su may famille ñoom ñëpp kon ni ma mel nii rek laa mel ak ñoom ndax su kersa rek moo am sama diggante ñoom famille la boo xamante ne ñëpp dañoo joxante cër ci mel ni suma mag Malal Sakho suma mag mooy suma taw bu góor maanaam mu jox ñu cër respecté ñëpp ndeysaan di dox mbokk lépp moo koy def suma mag Fatou Sakho tamit noonu c'est la même chose suma mag bi nga xamante ne mooy suma taaw yi sama taaw yaay muy Ibrahima Sakho ñun ñëpp. ay famille la ñoo xam ne famille demalante la ak ñoom am jaara saaxo su may xarit lañ su may mag lañ dañuy demalante dëkkalante vraiment ñu sekk jàmm suñu papa yar ñu yar ba nga xamante yar ba mu solo la ba boo gisee sa mag doo sigi xool ko loolu la am solo la maa ngi ciy sant yàlla baax di sant sumay waajur bu góor di sama papa di ñaan yàlla yàlla guddal fanam wér a cëram suma papa Baye Ballo si tamit yàlla ti ko jàmm mu wér ak jàmm ci barkent bi sallallahu alayhi wasallam di ñaanal papa mbër yëpp yaayu mbër yëpp ak Sénégal yëpp ku fi am yaay ku fi am papa maa ngi lay ziar di la sant di la gërëm di ñaanal yàlla yàlla na jàmm ci ñoom sax ci ñoom ci barkent bi salaay salaam. parce que bu ñu sa famille tamit danga am euh, rakki mbër muy Sa Thiès te ku ne Balla ne Sa Thiès parce que ci làmb ci la ñuy wax ba tey sa relation ak Sa Thiès. waaw suma rax la suma rax la et puis wax dëgg yàlla suma rax la ku ma la ku ma jox cër la te respect boobu mooy li ma wax rek respecté seen mag man ndey ma respecté suma mag ba bu ñu gisante maa ngi ñoom mënuñu toog te donc loolu lu am solo ci nit mooy li ma wax rek su ma rakk la daal bu ma respecté bu ma jox cër la. kar ñu wax ak moom tamit ci làmb ji famille bi wax nañ ci mais Sa Thiès bi nga bi nga doon laaj sànq mais yéen ñaar ruusante bi te bu ngeen nekkee ci làmb du ngeen ruusante mais tey ji ku ñëw seen kër ku ñëw sa kër fekk la fa. toog ñun. ah raar raar c'est raar. dañoo gisoon que nga génn ci journal bi ne dafa war a xoolaat doxalinam. loolu taxul mu bañ la jox cër boo xamante ne cëru làmb ak cëru nit ak këram bokkul waaw loolu dama la mu xoolaat boppam xool ñi muy àndal jox ñi ñuy cër ndax làmb boo amul kilifa doo dem maa ngi nii tey yàlla defal na ma lépp ci làmb mais teel a gën kilifa loolu koo koy wax ak koo koy waxal tamit aussi. koo bëgg la koo bëggul doo ko wax loolu waaw donc ku ma bëgg la sama rax la donc faa ma wax mu xam ne li may wax nii jëwyuma ko ko tooguma ci mbedd di ko wax mu ko wax ñépp dégg benn bu toogee tam ma wax te wax naa ko te jiraan boobu ba léegi gis ngeen ci changement dina li muy def dina ko xam li muy dugg tamit dina ko xam ndax làmb toll na ci loo xamante ay moroom ñoo ci nekk dafa war a tollu fi ay moroom toll. soo ñëwee daal dégg na ah mais bu ko déggul xam na tey du ci gis njëriñ te moom mu dégg ko rek mooy njëriñam moo taxit loolu kese la. combat ak Boy Niang dégg nañ yow bëgg bokkoon nga ci ñi bokk bëgg ñu pousse combat bi bi nga ko jàppee le 11 mars yow nga bëre la war a bëre le 31 mars xam nga foo dugg bañ la combat bi baaxul ma nga ni combat bi dañ koy pousse. non. ah baal naa rek. non bàyyi tooñ ma. bàyyi mu sedd. Ah, kon mu sedd. comme comme comme comme comme nangu bu ci wax Babacar mais Sa Thiès boobu ak léegi bëriwul depuis combat am ak ak kan la woon. Boy Niang 11 mars 2018 boobu ak léegi bëriwul est-ce que Sa Thiès yoon la muy def année balance instant bii nii moment yi mu toll nii. waaw ren moom war na bëri nag vraiment ren war na mën a bëri kon daal xëy làmb ji ni mu demee woon la bu yàlla dogalee tamit si tamit euh, saison bi bi war na mu combat bëri waaw waaw. rëg-rëg de moom bokk na mbër yi ñu gën a tudd di ko tudd instant bi moom Sa Thiès. moom Sa Thiès moom mbër la champion la xale dafa am yoonam rek ku nekk am seen mais Sa Thiès am combat actuellement. Mm-hmm. nee na moo man Yékini Junior ak ak ak Garga Mbossé ñoom ñaar ñëpp bu ñu boole woon seeni doole mu def leen lu bon. <laughs> yaa ko seen si li TV <laughs> ay xale lañu ay xale lañu euh, duñ sax ay ay mbër lañ daal ay champion lañ te war nañoo bëri seen biir. lamb ji loolu am na solo dañu war a bëri seen biir. mais Babacar moom combat bi mu gën a bëgg dafa mel ni Garga Mbossé kii la Sa Thiès moom Balla. Garga Sa Thiès la gën a bëgg Garga Sa Thiès nga gën a bëgg. non nga gën koo bëgg. non du loolu sax làmb xam nga làmb dafa neex te da ngay boole ñi nga xamante ne vraiment moom la amateur yi soxla mooy li ma rek la amateur yi soxla ak bëgg ko mbër boobu dafa war a nangu Sa Thiès Garga combat la Sa Thiès Yékini Junior combat la mais Sa Thiès ak Garga Mbossé mooy combat bu neex nag. boo gën a neex daal. non man waxee ma ko dara ne xam nga tey nga waxee ko ñu yaakaar ne. da ngeen a pare toog di xaar. non wallaay man ah man de xam a saa kees nekkoon ak yàlla papa moo di safam. ñaar bokkoon nañu saal de saa ci sa garab. man de bokk naa Yékini saal. yaa ngi jóg. waaw bokk naa Modou Lo saal. loolu du daal espoir espoir la. Modou bokk ngeen benn saal. waaw. Brise defe naa sa wuj éternel la moom. waaye sa caaxaan yi waaye sa caaxaan moo sol roi de balaa ak mbëri yi def sorti laajo laajoon naa ko ko mais ba léegi mbëri ñoo ngi def seeni sorti di di xaw ma cofeel la xaw ma lan la xaw ma dañoo am ay relation ci suuf xaw ma nu mu demee noonu nee na boo nekkee à 100 pour cent wóoroo bëreel neexoo bëreel ñeme nga am nga fit ak lan moom daal tàggal naa la say maam xaw ma nag lu ngeen seexee ñaar. non mooy li ma wax rek xam nga Gris 2 moom ñëpp xam nañ ne cër bu mu jox doomu aadama yi la moom ñëpp la respecté rawatina moom ndax wax naa la ko ba muy bëri Gris Bordeaux lu coow lu coow lu bëri man mënu ma ko gisoo ko parce que maanaam cër la bi muy wone di ko wax nit ñi di ko dégg man bokk ma koy dégg ak li muy jëfe tamit mu tegu ci yoon moo tax kuy joxe cër da am cër kuy joxewul cër doo cër loolu rek la man gis naa ne daal ni ku baalu te ku joxe cër la. moom Gris 2 waaw moom Gris te waxam lépp na koy teg ci yoon et puis ku respect la ci doomu aadama waaw man loolu moom leer na ma. am na beneen mbër fëgg yaa ko jël am na lu mu wax ci yow mu wax. làmb na Balla bu ñu amul moo tax làmb ji di nelaw. la suma xarit la ñoo doon bëri noonu Mbapat Mbapatu Mbass Mbargane wax dëgg mu nekk nit koo xam ne suma waaye la bu ñu fekkante ci làmb lu ne lay waxante maa moom. parce que sekk nañ ko man fëgga la Tidiane xam nga ay ñoom bukki affaire yooyu bu jamono yooyu bu ñuy bëri ba pare Ousmane Diop ñoom Baye mu Diop ñoom lañ doon invité ñun ñu nekk booy ay Issa Pouye ñoom lañ doon invité ñu nekk ay xale di bëre kon donc xamante nañu suma waay la suma lépp la ah door ko làmb moom wax na ko li mu gëm moom la gëm mooy lamsaar la gëm man géej waay laa gëm mais wax wax sa mbaax du yàq dara sa mbaax donc vraiment. suma waay la suma xarit la parce que ñoom ñëpp laa seq jàmm du question téléphone bu ñuy jokkoo la de déedéet maanaam fu ñu fekkante nit da koy jox cër dox ko ormaam li mu moom loolu moo tax maanaam ñoom ñëpp ni ma leen ko joxee ñoom noonu lañ ma ko joxee parce que tey man ak ñoom même génération lañ xëy na yàlla mooy def lu ko neex def nit koo xamante ne ah, bon àgg na foo xamante ne ñoom àgguñu fa teewul dañ koo nangu mooy li ma la ñu joxe cër bi ma jox leen cër te koo bëreel mbapat xam nga ne mënoo ko jaaxal te suma xarit la waaw suma xarit la tiijaan suma xarit la ñoom ñëpp suma lañ. léegi wax yooyu ngay dégg ci mbër yi loolu motivation la wala Balla Gaye daf koy dégg di fëgg dënam wax boobu non <laughs> yàlla tere yàlla tere yàlla tere xam nga àdduna moom tamit man njëkkee moo ko fi te du ko mujj mbër bu ne jaar na fi. mbër yi ma gën a siiw jaar nañ fi Moustapha Gueye jaar na fi Tyson jaar na fi Yékini jaar na fi Mbaye Gueye jaar na fi suma papa di dubalees jaar na fi ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne fekkew ma leen du dëgg ci siiw bu ne ak boo yaakaar def nañ ko seen àdduna et publicité nañ loo yaakaar ak loo yaakaar man daal bu ma ko déggee man dama jàpp ne rek cër bi ma yàlla jox la ma respecté doomu aadama ñu delloo ma ko man da noonu laa ko jàppee waaw am na keneen ku ma ci jël barki dem muy rëg-rëg moom itam papaam moo wax moom rëg-rëg mu wax mu ne yow yaay xoromu làmb ji te bëre ci làmb ba bàyyi bëre actuellement te bëreewu Balla Gaye day mel ni defoo dara rëg-rëg mu ne il faut nit ñi nangul la la yàlla may parce que mooy li Lamine wax léegi ci fëgg la rëg wax na lu mel ni barki dem ci micro Leewtoo TV. Mhm. waaw mooy li ma rek rëg mooy loolu ñoom ñëpp su may waalee ñi cër la rek cër rek la cër la boo xamante ne wax dëgg yàlla jàpp naa ne man ci sama xelu bopp bu gàtt jox naa leen ko ñu delloo ma ko ndax tey àdduna man sama génération may dogg bëre dañ ne ku bërewul ak Tyson bëréwoo doo mbër man dama ñaan yàlla bëre ak Tyson rêve bi bëre ak Tyson Tyson nekkoon su may doon mais ñoom tamit liñ ma maa ngi leen ñaanal lépp li nga xamante ne rek wax nañ ko ci man muy lu rafet mu nekk seen biir xol yàlla na yàlla delloo yéene boobu noonu ñaan yàlla ba ni ñuy bëri Balla Gaye mu nekk événement ci ñoom kon loolu laa ni ñaanal parce que loolu tamit bokk na ci li nga xamante ne day doxal làmb. comme la amoon sa diggante ak Tyson événement ak sa diggante ak Yaxya. waaw loolu événement la maa ngi leen koy ñaanal ñoom ñoom événement bu mel ni man ñu bëri sama diggante ak ñoom. ku mel ni rëgg-rëgg seen événement dina métti tatar de. non loolu du problème lool galaal du métti. Omar kan. Omar sama turandoo la. <laughs> yéen a bokk Omar yi bu gërëgee kan moo yor jaasi ji. non Omar bu ragal moom amul fenn. Ah. Ah, loo bi la. dafa leer Omar nodduloo Bilal la Omar yëpp jàmbaar lañ kon mu mel ni affaire bi mu ngi bëgg a ferenkulaayu dama ferenkulaayu mënugu ko def mënugu loon ferenkulaayu parce que ñu wax ci sànq ba léegi ngi koy wax muy nekk dernière question bi sa combat parce que Babacar temps yëpp dañuy gis journal bi di ci bind boo xëy revue de presse ko sax di des fois am na ñuy commenter naan la bàyyil combat boobu noonu sa combat ak Boy Niang grand contre petit bi loo ci wax yow yow sa diggante ak Boy que tamit booy ñaar nee na ma dem foofu ndam bi bala ko du ko jëlee fa sa koñ. man daal ñëpp xam nañu mbër laa te mbër rek laay mos doon te li am solo bu lii paasee ngeen dem waxtaan ak Aziz lu mu leen wax rek pare naa pour bëri. pare nga pour bari booy ñaar. pour ñëpp. non booy ñaar waaw xam nga boo nee ñëpp. bàyyiwoo kenn grand bi dee ko dégg nii petit bi dee ko dégg de. Hmm. waxi am na am na lu ko papaam ëpp lu ko papaam ëppale wala magam. Balla ba tey defe naa benn soxna la yor ba tey yàlla baax na ci kanam li bés. <laughs> ay maa ngi lay ziar. Babacar lu rek. jox maa ngi lay bëggee dañoo ñëw ci gàmmu Tiwaawan bisu yonent bi tey la. dañuy wax ci gàmmu gi rek kon. mbaa am nga jàmm. maa ngi sant yàlla alhamdulilah. tey ñu ñëw Tiwaawan si gàmmu gi. gis ni mu demee mbokk yi ñëw xarit yi ñëw soppe yi ñëw ñëpp ñëw maanaam relation bi entre Baye ak nit ñi Baye ak waa Sénégal wala Baye sax waa làmb laay wax. waaw tawféex rek sant yàlla rek sant yàlla bu baax a baax xam nga tey ci waaw li muy rëy rëy rëy nit ñi wuy si la ci bisu Seydina Mouhamed ci bisu Seydi Hadj Malick loolu sant yàlla la di leen masawu coono di leen remercier. yow depuis bërki démb ba tey maa ngi léegi si kër yi nga ñëw jàpp ci gan yi bu ñu la fekkee sax dafa mel ni nekkoo journaliste mais bu sa liggéey jotee nga def ko comme ni nga ko waree kon loolu du xaalis moo koy def du juddu du dara jikko moo koy def ak am ak nit ñi jàmm loolu moo waral tey gis nga fi ku nekk ñu ngi leen di sant ñoom ñëpp di leen masoo bu baax a baax a baax. ma gis tamit leneen lu ma gën a marqué muy Baye ak ay xaritam ma gis gars yi toog ñoom Njóogu Mbaye ak eh, ñi ma ñoom ñaaxarañ ak ñi ma xamul ñëpp ah loolu tamit mu mel ni sa diggante sa ay nit daal dafa mel ni lu dëgër la. ñoom Fallou Ngabou tey mu ngi jóge ba Italie waroon na ñibbi bu yàgg du ma dem te xaaruma gàmm gi jàll di ko sant moom tamit ak mbokkam yëpp te ñun amuñu ay xarit ay frère la ñu am ñun ñëpp dañu bokk lépp ay morom la ñu soo ñu fekkee fii dañuy mel ni ñoo bokk ndey ñoo bokk baay noonu la ñuy fonctionner xàmmewuñu xaalisu kii ak xaalisu kii xàmmewuñu yére kii ak yëre kii ñëpp benn lañu ay morom lañu ay frère lañu kii suma frère la Ndiogu suma frère la Ibou Sow Ardo ngi ni bàyyi liggéeyam ñëpp bàyyi seen yitte yëpp ba ci Balla Gaye 2 ak ñoom Assane Ndiaye ñoom El Hadj Assane sunu mbokk yëpp daal ku lim jum di gërëm Aziz nag bu baax a baax di ko sant di ko wax taraanga ji bari na ñu ngi koy ñaan yàlla bu demee nee yàlla na mën lu ëpp lii incha allah. laajoon naa ko as naa la ko laaj maanaam gàmmu gi investissement bi boo ko doon xayma ñaata la. xam nga yonent bi moom kenn mu ko natt fenn comme mooy gën gi mu def moo gën a kawe ci àddina da ngay jël li nga am def ko ci rek kenn amul budget bi si bi moom da ngay def ba fi nga mën a yem rek après bu déwénee nga ñëw yeggale incha allah. mais bàyyi gëj nañ laa gis. <laughs> maa ngi xaar Thialy suma frère gis naa ko fan yi maa ngi xaar rek bu bu yëngoo rek ñu ñëw incha allah maa ngi ci ginnaaw <laughs> mais yow doo yëngu doo yëngal. maa ngi xaar xaalis. naroo yëngu wala nga maa ngi xaar xaalis maa ngi xaar xaalis. parce que daaw dafa am loo ñu defal de. waaw incha allah saison bi tijjeegul xaar rek ñu ci kaw la baax na. maa ngi la doon dégg sax après sa làmb bi mu jeexee ñu jéggal ñu si loolu ñu doon wax ne baay dafa deseel mbër yi xaalis muy Boy Niang ak Lac de Guiers loolu dëgg la wala déet. wala laaj lañ ko ko deseel nit doo ñu toog fii di wax ci micro yeeg yooyu. am nga numéro Boy Niang am numéro Lac de Guiers après nga lañ koy essayé laaj leen ba xam lu ñu wax. Uh-huh. ma gis si tamit Ketchup Ketchup luy seen diggante. loolu kii ñoo bokk géej waay ñoo juddoondoo ñoo yarandoo ñoo màggandoo ma xam loolu moom mu xam ko loolu la ñuy doxal ni ba tey kii ñoo bokk lépp ñoo bokk géej waaye bokk lépp ndeysaan mu nekk suñu frère bu baax di ko remercier bu baax a baax nit ku baax la sans façon. borom Bawol production ñu fekk fi tamit. xam nga moom mooy yore Baol production war a tëgg le 29 le 29 ñu fekk la tey kër ñoom Aziz Ndiaye nga toog ak Baye Ndiaye ay xaritam ak yëppam Assane maanaam jotaay bu mel nii lu mu lay loo ci yëg. waaw am mbégte rek di kontaan trop fii chaque année ñu ñëw màggal fi Seydina Mohamed yàlla na ko yàlla yokk dina wax Babacar kontaan naa lii Aziz di def bu xale yu bëri doon def ne moom xam nga Tiwaawoon dina mel gën a mel neneen. nañ ndaw yi xool ci moom li ñu yor ñu koy bokk ak doomu aadama yi day tax mu gën a yokk rek mais sant yàlla rek ñu ngi koy ñaanal lépp lu man ren de man lu ko ëpp barki Seydina Mohamed. yow moom am na ñoo sax dañu lay jaawale dañuy gis Fall Aziz naan kii xam nga jàppal bàyyil. sànq bi ñëw rek ci yoon bi am na ñaari policiers yu ñu téye après bi ma gée wàccee oto bi rek mu ne ma eh Aziz demal ma ne ko waa baax na keneen bi ñu ñëw ci buñ ci kër bi. ñi dalaat ñu même chose kon sant yàlla rek sama xarit la sama doomu ndey la xam nga euh, liñ koy ñaanal daal lii mu nekk di ko def ci Seydina Mohamed ci barke sëñ Babacar si bi mu yaakaar yàlla na ko yàlla yokk waaw. sa loo ma si mën a wax. nag moo gën a nekk sama xarit nag c'est mon ami kooku sama rakk la sama xarit la niñ déggoo sax moo gën a garaaw quoi waaw kooku sama doomu ndey la. maa ngi moom benn lañ samedi ak dimanche la bis doxu ci maa wax defe naa sa waay la. Ketchup maa ko njëkk a tëggal ngem maa ko njëkk a tëggal làmb xam naa ne jiga jiga diw ma ko de tëgg naa ko mu daan ma tëggaat ko mu daan. mu jógee ca nekkub américain. mu nekkub américain di am xol bu rafet nag. dem Ketchup kaay biig daa am loo ma wax dafa am loo wax fii biig danga nga ne ku la laal fii senegal day am problème loolu da la wax biig ndax ne léegi américain. yàlla dimbal na ko xam nga nit bu amee xol bu rafet yàlla mën na ko may lu ne yaa ngi dégg nit mënul am dara mënul téye dara mënul am dara te sa xol rafetul yàlla doful am na yoo xamante bi yàlla du hasard du ko def mukk ci àllum neen yaa ngi dégg am na lu ko yàlla may yàlla na ko yàlla yokk bu baax ba mu ba gis ci boppam ba gis ci ay waajuram mais lépp rek na rafet sama rakk la sama xarit la yaa ko waxoon bi da nga ne Sénégal ku la fi laal américain nga xaw ba noo ko noo ma ko waxalati bi mu ne la Sénégal kenn du ma fi laal ndax nit ñëpp ma bëgg sénégalais yi teg nañ ma foo xam ne tey kenn du ma laal ku ma laal ñu mere la <laughs> waaw sénégalais dañ ma bëgg de te sénégalais bu bëggee rek jeex na léegi nag sénégalais bu la bëggee ku la bëgg a tuutal wala ku la bëgg laal sénégalais yëpp jóg taxaw jàkkaarloo moom waaw. an sa njambaan mu ngi nii toog. waaw maa ngi nii waaw doomu ndey Ketchup borom géej waaye maa ngi nii waaw. waa di sant Aziz Allé bu baax a baax gàmm gi teraanga yi neex na kontaan nañ daal ci affaire yi kontaan sama grand Assane moo may waaye jox combat waaw bu see jënd billet yëpp bu see jënd billet yi ins bi nii fu mu nekk nii waaw. du wax lu dul dëgg moo tax xam nga lan moo neex ci àddina boo waxee lii rek dinaa tëgg diw rek nga tëgg ko man de ba ma doon wax dama lay tëgg moo lay woo moo lay jox avance moo lay jël jëlal oto defal la lépp du xaar sax ngay topp ci ginnaawam. déedéet dëgg la yow la may. cinq cent ma jox dong amul fenn waaw te te te ki ceec ceec ba ma saako kese gi ceec ceec baala kese gis ca ca siri buli buli kese